maa ngi koy fay nee na ma Zallo làmb juy dem la. Babacar <laughs> man Amadou Kati Diop. berkat moo tax ma ne la fa tafaar taxane falaaroo te xamul lu ko olof waxee. waaw Amadou Kati Diop da ko prouvé. dafa yor Tafa Gueye def ko champion. Mhm. dafa yor yëg indi yëkk yëkki Ndakaaru def ko mhm. kooku ku jaar ci ay loxom bu dee neex nga xel. perkat mën bëri tuuti Babacar di nga am xel bëri. bilaawul kitaab bi. perkat yi de. perkat moom moo jàngal ci ne boo boo boo bëggee dem ci action bi bul tëba tëb dem fa yóbbul mbër mi ci xelam ci leneen. mooy la ma déggoon kon permax Max Mbargane naan bu ñu la séentoo fetal da ngay fit merci ñu séentoo la fit nga fetal kati moomu tamit lu baree baree baree bare def na ko sama bopp bi kati kooku cerveau la wallaahi laa si moo tax ci laa jànge bu des fois mbër dama lay bëgg a soog dama lay miima kurpeñ nga xaw a téen wala xaw a def mu en ak action ba ñëw. yow kay yow kay kati kay li lay wan ne waa moom itam kenn du moom. Hmm. parce que boo nee Tapha Gueye ne Yékini ne Zallo. merci. <laughs> lii rek la foofu rek bu la nekkee taxaw fa. ba pare boo gisee liggéey na ak Cheikh Mbaba. liggéey na ak Cheikh Mbaba boo gisee may insister ci mbër da nga war a am réflexe. Mm-hmm. Babacar. Mm-hmm. Kati Diop da daan yor ñetti tengs lay yore. ay balu tengs. Babacar ñun làmb tarbiya nañu ko de Babacar. Hmm. ñetti bàllu teng si lay yore nii. Hmm. comme comme feeni eh, miir bi nii. waaw. nga may miir bi un mètre wala deux mètres. nga gannaaw ba gars yi duñ sàcc li ngay wax. ah kon baal ma baal <laughs> loolu ko war a jaay. loolu kay mbër mu mu jaral nga ñëw ci yow rek ngeen waxtaane ko. waaw kër ah. kat da lay travail yow. ah, ah oui loolu <laughs> ah. am na loo xam ne des koy wuti de. des koy wuti que affaire yaa ngi de aussi. Mm. yaa ngi fi waay waay nii bu ko seqee nga ñëw entraînement mu mu mu mu mu. tey dañuy ñëw tey nii. Mhm. kat jox nu cinq prises. waaw cinq prises la ñuy jox nga répété ko. mu ne leen suba boo leen ñëwee da ngeen ko répété te ku ci juum benn rek. gars yi ñëppay ran nga jaar ci digg bi di daw kurpeñ yi fu waaye mën a dóor dóor. allahu akbar. <laughs> Babacar Lamb moo tax maa lay wax benn suur dañ ko tarbiyewu te dañ ko tarbiyewu. billaahi mhm. wal kitaab Babacar. Mhm. ñu ko tarbiyu moo tax yaag Tafa Gueye daal daa mel ni hmm. seen i wax ci làmb man day ragal naa ko wallaay laa de hmm. perkat yi koy nuyu di ko ziar ñu ngi koy ñaanal yàlla waaw yàlla na gudd fan perkat yi ku baax la entraîneur la parce que entraîneur la parce que hmm. man nee na ma euh, ndeysaan dama ñëw di ko laaj ñi nga yoroon Yékini surtout Yékini koo gis ne niroo na ko tey wala nangam ak i sàngam <coughs> baal leen ma mu serinja ma Serigne Ndiaye numéro 2 moo ma ko wax de. wallahi la hmm. ci interview lah ko. si ma ne ko lu tax mai, ne parce que comportement yi. wallahi moo tax Serigne Ndiaye numéro 2 du dara mais gëm na parce que waxu kati boobu dama ko jàpp moo ma gëm ne. jàppal de continuer top kati te da koy top moom Serigne Ndiaye. de xalaat naa ah katee wax de te kati c'est pas n'importe quelle personne te retouram bi mu retour face Dakar. boo xoolee écurie Fass mu jógaate ni mu jógaate ça veut dire que c'est quelqu'un bi nga xam ne mhm. euh, vraiment daal yàlla na gudd fan te wér amiin moo ko yeneen coach yëpp ak ñëpp parce que tamit làmb lu mu a doon dañ koy jàng mhm. te bëre du xeexu mbedd waaw du xeexu mbedd moo tax may insiste ci rapidité mhm. ak yaram bu nooy ci bëre waaw te loolu des koy liggéey